waaleykum salaam. waaw naka euh, bi garaaw na bërki démb samedi contre Aston Villa euh, corner bi nga jëli ko sa bopp cos ko mu dugg deuxième poteau. non may naa leen ko <laughs> may naa leen ko ci boppé Sénégal yoo xamante euh, bu may joué amuñu jàmm macha allah ñoom laa ko may ko honnêtement. oui parce que yow booy booy booy football Liverpool. mais samedi bi bi nga dugalee deuxième bi bi dafa mel Sénégal mo dougal quoi ñepp di di teub di yuxu lool noko ko c'est lool la dégg lool la lool la dégg quoi parce que après match bi euh, dama déggoon sama sama galé ñu ne fi mom moom mu ngi toj parce que bi nga dougalé bi mom Sénégal mel Sénégal mo joué. parce que ah lool mom kay macha allah loolu moom kay euh, day tax day tax na ma gën a fas jom pour ñom euh, c'était c'était vraiment c'était vraiment pas évident. Euh, on a été mené un, but à zéro euh, en premier mi-temps et euh, je crois qu'en premier mi-temps, on n'a pas, pas, pas joué comme il fallait, donc on a été puni. mais bon, on a essayé de continuer. En deuxième mi-temps, on est revenu, on a poussé ensemble. Et finalement, on s'est créé pas mal d'occasions et on a marqué deux buts. Même si ce n'était pas notre meilleure performance, mais au moins, je crois qu'on méritait les trois points. Mhm.

pour xam nga mën a yëgal suñu équipe si kaw kaw ak championnat ba nga xamante ne yombul daal dafa bëri jour puis championnat dafa xaat waaye ñu ngi ñu ngi jéem daal lu ñu mën pour gën a nekk si kaw kaw. Mhm. mais City mi ngi seen kaw de mi ngi seen ginnaaw ñoom ngeen dajal sax prochaine journée. waaw gisoo gisoo City mu bi ñu ngi ñu ngi. <laughs> City teg pression ba nga xamante ne kenn mënul. non il has been Donc de toute façon comme dañuy jouer samedi dimanche prochain Inch'Allah, allah a naa yàlla bu ñu jàppalee nous gagné leen xam naa dina dina euh, waaw deuxième. waaw ñu mais euh, vous faites ce début de saison là alors que vous avez eu très peu de vacances il y a eu la canne. vous êtes très peu reposé. Hein. Ouais, c'est vrai que entre les bon, je dirais entre les deux deux saisons je n'ai pas eu beaucoup de repos. Mais vous savez, la fatigue des fois c'est dans la tête. <laughs> psychologiquement, je, moi, je ne m'en fais pas de soucis à ce niveau. Tant que je peux aider mon club ou ma sélection à progresser, euh, euh je mets de côté euh, beaucoup de facteurs en fait. ñetti at a ngi nga nekk euh, Liverpool bi ngay bi ñu lay transféré foofu am na supporter yu demoon réseaux sociaux yi sax naan mais joueur bi luñ koy doyee mais tey jii ñoom changé nañ gis-gis ci yow. si si loolu mënut a ñàkk comme surtout football bu ñu nekk da ngay wax sa xalaat quoi maa ngi fàttaliku et puis ma ko yaaka waxee ñun ñëpp ay jeunes lañu te ñun ñëpp ñu ngi si réseaux sociaux yi gisoon naa ko mais bon comme ni ma ko man daal du ma si focaliser de trop parce que ñoom seen xalaat lañu ñu loo xamante ne mooy dëgg de toute façon maa ngi ni alhamdulilah yàlla bu mu weesu loolu maa ngi def li mu mën si équipe donc euh, xam naa loolu moo ëpp solo quoi. Mhm. Euh, mais public bi léegi ànd nañoo ak yow euh, Sadio Mané rek la ñuy la ñuy wax sa sa sa digganteeg sa sa sa farandoo yi ñi nga bokkal équipe ak sa sa coach Jürgen Klopp. non sama samay coéquipier macha allah maa ngi am relation bu bu baax ak ñoom ñëpp jàmm la ñu sekk xam naa dafa baax si équipe.

Est-ce qu'elles sont bonnes ou vous, vous faites semblant tous les deux non, c'est pas une question de faire semblant. Je crois que ça, c'est, suis pas du, genre à faire semblant. Comme je l'ai dit, euh, moi, je suis quelqu'un de, j'essaie d'être très, très, très honnête et j'essaie de faire toutes les choses naturellement. Et je crois que ça se voit. Chaque chose, ça vient naturellement et c'est pas une chose qui, qui, s'efforce sur moi ou, j'essaie de faire semblant. Je crois que ce n'est c'est pas bien comme je l'ai dit, il y a des choses qui, peuvent arriver sur le terrain et euh, ou en dehors du terrain. Ça, c'est quand on vit, quand on vit ensemble, euh, et surtout quand on vit tous les jours, euh, ça arrive. Mais c'est quelqu'un que, que, que, j'aime et que je respecte et on a de très bonnes relations sur le terrain ou en dehors du terrain. N'empêche, si les choses ne vont pas bien, qu'on se dise les choses et après, ça, ça, passe. Hmm. C'est ça la vie en fait. léegi ñëpp ngi xaar nag euh, ballon d'or France football bi nga xam ni war nañ ko joxe euh, fii at bi di jeex euh, ndax am nga yaakaar jël ballon d'or France football. Ah, bon ballon d'or moom comme ni ma ko waxee ay footballeur bu nekk si àdduna bi xam naa ñoom mooy suñu rêve maanaam. xam naa ni ins bi euh, bon mën naa ni dinaa ko jël wala dama ko daal de toute façon am na ñoo xamante ni ñoo si nekk quoi ñooy xool lu leen dooy rek après ñu jox ko de toute façon buñ ma ko joxee rek dinaa sant yàlla après continuer buñ ma ko joxul aussi dina fas dina sant yàlla gën liggéey bi xam nga mën a am ëllëg incha allah mais euh, déjà UEFA bi muy joxe meilleur joueur am FIFA tamit tan meilleur joueur ñu tànn ñeneen am ci ñu ko mettitlu trop yow da koy mettitlu xam am nga lu la ci metti tamit non. non non man daal dara méttiwuma xam nga rek loo xamante comme ni ko waxee rek am jour yoo xamante ni tamit def nañ saison bu baax macha et puis. ku nekk da ngay def si choix ku la doyal quoi ñoom ñu ne ñoom ñoo leen di doy après ñu nommé leen de toute façon man loolu signal la ba nga xamante ni comme boo ma nee Sadio gën a gën a góorgóorlu xam nga noonu laa ko jàppee quoi de toute façon mais euh, defe naa ñoom tamit euh, mérité nañ ko parce que def nañ saison bu baax macha allah donc euh, man daal damay gën a góorgóorlu nekk si année prochaine. vous savez c'est tous tous les footballeurs rêvent du du Ballon d'Or. Euh, comme je l'ai dit, je ne suis pas une exception et il y a beaucoup de noms qui, qui reviennent, mais comme je l'ai toujours dit, je laisse les choix aux différents jurys euh, qui, vont, qui, vont, qui vont prendre la décision finale. Mhm. ku ci Van Dijk ce défenseur défenseur Liverpool boobu euh, sa la moom it ci défenseur yi a am solo ci àdduna fi ñu toll. si si si moom macha allah défenseur Virgil moom. Euh, sama xarit la si biti wala ci biir terrain donc bi euh, mu gagné moom bett parce que daaw moom moo moo fi nekkoon macha allah moom saison bu mu def macha allah saison bu rëy la te yaakaar ne du man kese àdduna ñëpp d' ni ni moom na ko. Mhm. bu bu dee ballon d'or Afrique bi nag moom xanaa bii yoon nag nag xanaa euh, jàpp nga ni ñëpp jàpp nañ nii yow lay doon. <laughs> <laughs> en tout cas comme ni ma ko ni ma ko waxee amoon naa ñaari ñetti yoon am chance d'ex si euh, podium bi comme ni ma ko waxee damay gën a rek xam nga pour nekkaat si ren ba ba jël ko de toute façon am ba day dina teel a tuuti naan dinaa ko jël wala ko ko jël waaye lu wor mom dina dina dina joxe lépp mën jël inshallah Alors, Sadio Mané, la Coupe du Monde des clubs qui va être euh, jouée euh, entre juin et, juillet, euh, ça veut dire que pour un joueur qui joue la Cannes, ça va être compliqué. Imaginez-vous, avec Liverpool, vous jouez une, Coupe du Monde des clubs en été, juin-juillet, et que la Cannes se déroule à cette même période-là. Ah ouais, je crois que ça, c'est vraiment, vraiment. Moi, je dirais plutôt que c'est vraiment horrible. C'est vraiment. Euh, horrible en fait. Le monde, plus que c'est horrible, c'est pas possible. On ne peut pas jouer euh, notre, la Cannes en 2021 et aussi pour décaler la, du Monde des clubs. Je, crois que c'est. De toute façon, on sait que <laughs> voilà, on va, on va, on va, on va, on va être là pour notre nation qui, qui, qui, qui aura bon de moi. Donc, euh, ça que j'ai à dire. Vous allez choisir le Sénégal dans ce cas de figure si euh, la Coupe du Monde des clubs se joue à la même période que la Cannes, c'est ça? Euh, bien sûr que je, vais choisir mon pays, euh, même si je faire mes Donc, euh, ça, il n'y a même pas de débat. Ça, c'est clair. Après, le reste, c'est ce qu'ils vont s'occuper de ça. Mhm. en tout cas nous sommes lay xaar Sénégal fan yi di ñëw ndax Aliou Cissé une liste joueurs qui sont été ngir ñu football au Congo ci Stade la Jord de Thiès après nous avons fa jógee dem Eswatini muy euh, ñaari journée yu njëkk ci éliminatoire CAN 2021 liste boobu nag gis nañ ci ñetti boy yu bees ku ci mel ni mohamed Nabi di doomu Boubacar sar Locotte tey football ca euh, Charlton de Angleterre ci championship deuxième division Angleterre gis nañ ci tam euh, Moussa Ndiaye moom nga xam ni ci benn centre de formation lay football fii Sénégal bokk ci équipe U20 du Sénégal moom moo nekk meilleur joueur CAN U20 bi amoon ca ca Niger noo gisee choix Aliou Cissé yooyu comme ni ma ko waxee moom Aliou c'est mom xamna naa fi si gëm la nekk ba euh de toute façon day xol ni ko ni ko doole après mu sélectionné la comme ni ma ko yàgg wax équipe nationale mom ñëpp a ko bo ñëpp ko boo ñëpp a ko bokk quoi te lolu aussi je pense que lolu dafa am solo quoi jour locaux yi xam nga té euh, bëri naa jour locaux yoo xamante ni Sénégal té mën nañ football trop de toute façon xam nga je pense que Aliou Cissé nous su fekkee koo xamal comme le cas de comment il s'appelle euh, Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye aussi je crois que c'est vraiment une bonne chose donc euh, ça permettra au ñeneen joueur yu xam nga gën a góorgóorlu rek xam ne ni football moom noonu la quoi mm-hmm. yàlla baax na de toute façon buñ góorgóorlu rek xam nga bu ñëwee sélection moom dinañ ni accueillir comme ni ñu leen war a xam nga pour ñu booloo xam nga ñun ñëpp euh, def ko war a def pour Sénégal am ndam mm-hmm. Euh, coupe d'Afrique euh, bi nga xam nga léegi football duñ ko janvier ay juin juillet lañ koy footballé yow loolu noko gissé bon comme ni ma ko waxé dal loolu moom du ñun ñoo koy décider ñun dal ay jour lañ quoi ñoom tamen ñoom loolu mooy seen liggéey xam dañuy def lo xamante mo moo quoi comme ni ma ko waxé été aussi ko amna ñoo xamante bon si période vacances tamit de toute façon Sénégal suñu dëkk jaral nañ ko ñu bàyyi suñu vacances ñëw def. Et, euh, aussi janvier aussi bon des fois des compliqué si club wala si six jours parce que amener na ñoo c'est pas évident amener na ñoo c'est un club dañuy un problème lolo à quel jour aussi qui perdre seen place en tout cas moi personnellement moom ànd naa si quoi si été e moom amul problème lolo moom ça me va. Euh, Sénégal euh, euh, Coupe d'Afrique 2021 bi war Cameroun yow noo ko gisee final finale bu 2019 2021 jël ko non.

Sénégalais mhm. je pense que ça va être un peu tôt de parler de de gagner la coupe même si on sait que euh, maintenant il n'y a plus de calcul c'est c'est c'est le rêve le plus absolu de tous les Sénégalais et on y travaille et une fois à la Cannes on va on va aller pour pour gagner bien sûr mais avant d'abord je crois qu'on a les qualités c'est à faire euh, c'est le premier match qui va se jouer à Dakar. On va essayer de, de, de, tout faire euh, pour, avoir un résultat positif et se qualifier d'abord et ce qui va se passer à la euh, mais jour bu toll du football ci stade du match ci ay ay gazon yu bax lu ci melni Anfield di stade Liverpool jóge fofu dem stade la jol de Thiès ak ni anam yi grawé fofu loolu mom doyna war hein non comme ni ma ko waxee moom daal des fois si siy baax quoi xam nga du Dakar kese Thiès aussi xam nga biir bu bu baax la te ñoom tamit xam nga peut-être am na ñu bëri ñoo xamante ne amuñu chance ci Sénégal jour sénégalais yi xam nga biir Dakar mais bu ñëwee Thiès xam nga ñoom tamit nañ profité seetaan match yi et puis xam nga comme ni ma ko waxee rek pelouse moom loolu la ñu am ñun Sénégal loolu la ñu am donc amuñu choix il faut ñu def foofu rek xam nga jouer fa. mais eh, kon li ma li ma mën a wax mooy maa ngi lancé appel aussi autorité pour ñu gën a jàppale si football Sénégal surtout tey ci Sénégal tour bi je crois que au moins mérité ñu benn stade ba nga xamante ni mun nañu pratiquer football kilifa yi eh, nee nañ dinañ tabax stade bu bees ci jam ñaajo ñu ngi xaar eh, li ñuy jeexalee mooy yaa ngi wax sànq ne waa Thiès nañu am occasion gis Sadio Mané Idrissa Gueye gis Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly bobu la ñuy waxtaanee ci weekend bi euh, match championnat Italie ak équipe am Naples da am ñuko ko doon yuuxu foofu ci ben stade yuxu raciste euh, di lo xamni mom vraiment dañ ko cee yab sax quoi mi ngi bi ngi bëgg bari si si gis naa ko aussi gis naa ko aussi et puis euh, envoyé naa ko message quoi de toute façon li yeb comme ni mako ko dal racisme mo amul place football je crois que ñi koy def c'est des gens yoo xamante ne c'est des gens yoo xamante mal intention ñoo xamante ne je crois que euh, xamuñu lan mooy xaw ma nuñ koy waxee sax si olof sama olof bi sama koy dakar nuñ koy waxee si olof mais de toute façon doy na waar doy na waar je crois que loolu amul place si football te c'est vraiment déplorable je pense que lii moom ak euh, vingt e siècle moom war na arrêté quoi war na arrêté quoi war nañ jël matuwa ay yëpp arrêté quoi. merci Sadio Mané euh, ci ci waxtaan wi. merci Jamba <laughs> merci. ñu ngi lay gërëm yendoog jàmm foofu ca ca Liverpool di la xaar euh, Thiès fan yi boori ah. dimanche jàpp altine yow normalement lundi ngay ñëw ah. normalement incha allah. incha allah merci Sadio Mané d'avoir accepté cet entretien. merci à vous aussi et passez une bonne journée.